Jusqu'au 30 janvier, Orange Monnaie, en partenariat avec Canal+, vous offre des cadeaux par milliers. Payez vos réabonnements Canal+, avec Orange Monnaie et profitez de jours supplémentaires gratuits sur toutes les chaînes et de plein d'autres bons plans. Orange Monnaie ak Canal, fayda bi dafay wàcc ba zéro. Orange yaa ngi nii war a fay canal bi fayoo ko ngay xoole ba ñu coupé ko tey seetaanuma benn série novelas lépp ma raw tey ah lépp lépp lépp raw ma ndax yow. mais chérie dis pas ça yow tu sais très bien que ni man sama bopp surtout sama gars yi nga xamante ni tout le temps heure bu ne la dugg ci kër gi kër gi man dafa mel na ñoom ñoo ma loué. fekk yaa ngi sol noir fumé bëccëg moom lu ne mën nga kaa fàtte. non non rayon du soleil bi xam nga sama ophtalmologue daf ni ma il faut que muy may may moytu les rayons ultraviolets tu sais très bien que ni loolu day joxe cataracte et ça j'aime pas du tout. ba pare jël say airport ne ko nopp sa biir ñoox sa biir nopp nooy déggee yow lu nekk mën nga kaa fàtte lu ne mën na laa raw jamono ji euh, sinon Canal Plus bi ah t'inquiète même pas fii ma toog laa koy fay ak Orange Money boo fayee ci sa Canal pendant 15 jours da ngay dugg fu la neex ci say chaîne chaîne bu la mhm. neex ngay seetaan canal pendant 15 jours. yaa loolu neex trop mais des na. Hmm. chaque semaine mën nga am chance su gagner quinze mille francs et au tirage final tu peux avoir aussi la chance de gagner 100 000 francs mais nag offre bi. Mhm. janvier mu jeex ah. 31 janvier kon ku yebul profito fayee ci sa Orange Money euh, Canal Plus et puis mu jeex. ah. ok boo gañee première quinze mille moom mën nga koy may. non les mendiants amuñu yére pour ñu sol. dafa sedd. il faut penser aux mendiants ñi nekk ah, ci les enfants là. si si loolu moom dana leen di xom bu ñuy lux luxi. kon deuxième deuxième quinze non. tu en as assez quand même. trois comptes doy na. chérie. ah chérie ça ça va ça va ça va bien naka mu tranquille ni nga defaat si si journée bi. gis naa la maa ngi sa ginnaaw en tout cas sama xol sedd non non je t'avais dit que les 4 millions 500 c'est pour c'est pour Pipi tu vas la voir tout de suite. c'est pour ma tortue non yow am na jëkkër ju doy waar. <laughs> vraiment yéemu déggoo man la sonn ma de. moom ni mu mel rek man noonu laay. mais il est pas normal quand même. si on se dit la vérité copine mani. kii xam naa ko bu baax yii lay def ak yeneen man nu mu mel rek laay sëy ak moom. bëgg nga ko ci nii bu baax. maa ngi géré mais j'espère que yaa ngi ci jàmm. ak voyage bi nag daf ma jàpp ba léegi nii damay mais ça lépp. mais ça va li ma la du ma ci dellu ginnaaw. Oh, du ma ñibbi kuy yomb bu sa kët te gis nga sama gaay yi sama ñett jëkkër yi boobu ba tey ñi ngi jaabante ci kër gi ba ma lay tàggu di dem marché keroog mm. dama génn sama néeg rek yam ci ñoom ñu rangaloo naan ma ma wax kenn ki naan ma xam nga baax dafa am caay-caay naan ma lekk bi keneen ki naan ma ñu ñëpp a ko soxla ma ne ko may leen ma je duggee sa néeg waxuma dama la tàggu rek ne la marché laa jëm mais boobu maa ngi leen bàyyi ci biti ñu toog waxal ak ñoom nag létt leen maa nga firi leen copine man maa génn gis nga bi nga demee noonu fekk may wax ak euh, waa France sama sœur bi di ma woo maa génn yam ci ñëw dama choqué wu. looy wax ni tellement choqué ma lay gisee seen xeetu sañse ku nekk kii di lamsal kii di biiñ. kii di làmmiñ kii di man dama dama j'étais choqué. dañoo dañoo kii nag de ah, man xam naa li ma yor de xam naa bu baax li ma yor. am naa ci ko mos a xaw man moom dinaa leen wax ñu ñëw ku nekk ñëw déposer CV yow yaay toog nag liir xool kan nga ciy may contrat xaw ma nag. D ma CD yi. bu leen jàkkaarloo nañu koo ah. bëggul lu yomb na rek. Ah, maaleykum salaam chéri Coco. Goro. ah léegi Goro laa nekk ah, jabar. lu may def. <laughs> waaw ba tey baax na. naka affaire ma droit au but. ñu fi nekk di tendee fal ak di xëcc di sori waxtaan na xale bi hmm. xale bi dafa bëgg góor bu koy génnee di ko yóbbu resto di ko toppatoo mais tamit di ko wan la nga xam ne xamu ko woon bëgg na góor bu koy protéger boo leen génnee ci biti yaay géré côté xaalis moom du problème ndax moom 10 ans dafa liggéey 10 ans yëpp Europe yor na ay orom yu bëri te ñeme na ko def ci góor mais ci kaw góor bu ko comprendre xale bi dafa bëgg góor bu jantal góor buy incarné di frimer góor ba nga xam ne bu génnee ci biti day sadik boo duggee ci biir néeg bi day nooy nepp ne xaal bëgg na tamit ku koy boot di ko gili-gili day liggéey 7 jours sur 7 Paris kon mënul ñëw fii teg du góor bu koy stressé góor bu koy yombal yombalal léppam la bëgg boo leen dem resto ak resto bi nu mu mënti chic yow ni nga mel rek noonu ngay mel sa comportement moom bañoo ñëwal naturellement góor bu galant la soxla góor bu correct góor bu am yërmandem ba pare xam lu mu bëgg xam lu muy bañ. woo nga ma ci sama manin nag. bëgg na restaurant trop nag loolu wax na ma ko. Mayga bëgg eh, looy def Mayga. omelette. lu muy doyee omelette. nen bu ko toj. Sophie depuis ba nga attiré ci avion bi ba wàcc ba dugg ci Sénégal dama ko njëkk yëg ci sama yaram ma xam ni. am na lu bees lu ñëw ci réew mi. boo xoolee ba xool <laughs> maa ngi def loo xam ne sax gëj naa koo def ci sama dund muy doxaan. man ni ma lay yëgee ci sama xol bi maa ko kam ak yàlla man ci sama suufu xol bi laa lay yëg. am na loo xam ne dina dama am CV ci doxaan. dem na ba romb nga sama xol bi léegi yaa ngi ci sama saa. ndax col bu ñu ko demee ñu opéré ko ñu changé ko sax mbëggeel bi mun na dem kono bu nekkee ci deret bi du dem toog naa semaine yi munumaa lekk munumaa naan munumaa nelaw finalement dama dem hôpital ñu diagnostiqué sama yaram xool kaw ba suuf médecin bi moo mu ko wax moo ni ma Moustapha yow amoo benn problème mbëggeel moo lay gaañ sa teen neex na ma say lèvre oyof comme risla nga may saf ndoxu koko jaral nga ma dem ba tor përiko jënd fa ariko ak ndoxu koko naan la séeri koko lii bu la doyul xaw ma lu lay doy man lii suma patrimoine la moom sax laa la bugg a booleel ma may la ko pour ma defal la première de la cadeau la ko mañetu fan la ku ne am na ko. su ma la takkee yàlla def na dama dëkk kër famille mais dinaa rente ba am sama këru bopp dugal la ci même bu dee pantere ñu buuxante fa mu mel ni mbëggeelu kaña. tubaab nag wax na ko l'amour c'est la maladie ne pas les personnes ne pas les de les soigner ni le docteur ni de de la maladie. et puis moitié pàccal bi nga def nii rek boo defoon ñaari pàccal yi àdduna bi day waat gis nga li yëpp dafa bokk ci li may gaañ ci yow. xam nga mu bëgg Sophie héberger ma sa xol. je au fond de mon cœur comme le poisson aime l'eau de la mer loolu weesoo maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sunu waa koñ ak mère bi ma yar mère Assou Gueye <laughs> beneen bi may waxaat nag pour mot de fer mooy yàlla dénk na ma ko de dénk na ko na ma de mun naa dem fii boo teseet normal waaw du ma loxal du ma yox yoxi waaw maa la ko wax. prends mon fiançailles s'il vous plaît prends mon fiançailles prends wala je vous laisse pour te réfléchir. ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw du tudd seen tur nag yàlla def na day sawlal pisser de lii lay def ñoom waaw mu loolu laa lay wax. man moom macha wér naa biir wér biti yaa ngi may blessé bàyyi li ngay def surtout ñu bàyyi di ko macc maccant yi nga koy def ah xoolal li ngay def xam nga yaa nga li ngay def prend moom finance yi jaral nga ma saaku yemb si caay ma ma ngemboo courant di daw boo géej waay dellu sax dem fóota man jaral nga ma. kontaan naa ci gis nga. man maa la bëggal sama bopp man maa la xool gis la bëgg la bokkook ñoom te du yàgg ba ngay ñoom. waaw ah, ça va bien ça va bien merci. Euh, attends cinq bëgg naa brochette bœuf. brochette bœuf. ah, ah. Euh, kilo Gustave Niora. ça fait très longtemps lekk ma ci bi. riz cantonné ah d'accord il faut pas oublier riz cantonné. riz bien préparé. d'accord. moom tamit dama indil nature. nature voilà. café aussi. S'il vous plaît, pour tout de suite, d'accord ah, Vas-y, bébé. Toi, tu prends quoi euh, C'est... moom li ma li ma commandé yëpp ñaata. non dama ko bëgg xam léegi. quarante deux mille deux cent la. ah. quarante deux mille deux cent. quest

andil ma kirnaan. seet ko. andil ma kirnaan. kirnaan bàyyi. bébé. la. dañu ñëw resto pour man man man man nga andi lu toll lu tolloog lii. je comprends. ah. la mën. yow mën nga yem 2500 francs nga ni moom bu may indee resto lu ñu wax nga ni dafa bëri nga fi indi ay 2500 monsieur pardon ce n'est plus la peine. Ah, eh. ko borset. salade 1000 francs. 2500 bi ci ndox mi daanaka fay la. lenn moom bu jógee fii may nga mën a

na fii ba la 31 décembre bànneexu leen ci tombala bu mag bi ngir gagné enveloppe yu 50 000 francs yi wala sax 4-4 gu yàlla gi ñuy maye ci tirage au na kalpe Orange